sunu gan euh, Serigne Gueye Diop wa alaykoum salam monsieur Fall. ñu ngi lay dalal jamm di nuyu Georges Déthié Diop yow yaay maire bu Sandiara commune bu nek ci département bu Mbour euh, samedi nak euh, da nga def déclaration ci dëkk ba wax ni candidat nga ci élection présidentielle ba fi dañu japon ni wala lañu japp légui sax ni Macky Sall nga andal ndax ci li ñu mujjee xam ci yow itam euh, conseiller nga wala ministre conseiller ci présidence de la république euh, Macky waxagul koy candidat Benno waaye yow nee nga candidat nga euh, lan mo indi dogal boobu. jërëjëf Babacar d'abord ma ngi nuyu seen auditeurs yëpp di nuyu également borom société bi monsieur Youssou Ndour di sama xarit di sama je vous d'abord que euh, d'abord suis euh, un candidat je suis un candidat Je suis créé ben parti le SEM le Sénégal en marche vers euh, l'excellence suis est sama Dans li tax ma aussi moi à un certain moment je ngay en charge se destinée man dama ñëwoon au Sénégal pour euh, liggéey liggéey d'abord ci wàllu commune liggéey ci wàllu euh, euh, au niveau national dimbali réew mi tout simplement lépp lépp loo xam ne ci wàllu santé la ci wàllu éducation dama cee yàgg vous savez que depuis 2000-2010, li ma jëkk a def avant ma Sénégal sax mooy tabax lycée may ko état bi pour 850 millions li ma jëkk a def mooy may ay bourse li ma jëkk a def mooy suis ma de ma carrière ñib Sénégal nekk maire développer la commune loolu moo waral bi président de Daydem, dem ma également ko man également euh, sama mission parrainée. sama mission que demal de damay demal sama bopp du ma permission en matière de politique Je ne que tu as un rôle à jouer de par mon expérience euh, internationale euh, de par aussi une formation euh, ci est ingénieur industriel ci le docteur d'état ci est agronomie alors lolo, du ma permission donc ce que j'ai fait euh, moi juste partir démarrer son bop, créer un programme que que j'appelle GICOMCOM, semer les graines du développement de ce pays et puis le demain. le demee. Mm-hmm. ci action ci RFM matin euh, wàllu médecinship lañ doon waxtane moy bato bobu di faj nit ñi di len opérer ci luñ dul fay dara bokku nga ci ñuko indi fi fogna euh, ci fatali deug la deug la xam nga je suis un ancien des États-Unis de de Boston. Euh, Mership samay xarit lañu lima bima bi ma Sénégal comme dama am beaucoup de d'activités ci wàllu ONG ci walu humanitaire alors jógee Texas donc je suis allé effectivement à à Dallas, à Lindale en particulier, pour euh, demander à Mership nous euh, depuis 4 ans d'ailleurs Et euh, li fait def ci opération maintenant 3300 opérations, trois mille trois cent opération ay Sénégal gourds, des enfants Yo y a amuñu benn possibilité de se faire opérer loolu d'ailleurs on va on a créé déjà ce qu'on appelle le point focal Mership Afrique non seulement li ñu ci xamul non seulement ils ont opéré beaucoup de personnes mais léegi dañu créé créer ce qu'on appelle euh, donc le Mership africain nga xam ne fexe naa basé wu à Dakar au Sénégal euh, pour toute l'Afrique parce que de me proposer ñu dem maintenant ci wàllu euh, dem ci biir Afrique ci biir Mali sauf à am war opérer ñu leen par avion à Dakar su fekkee ne dañu am Guinée ki réew yi nga xam dal amul donc l'autre aussi ci la ci la bokkoon. mais pourquoi yow nga tànn demal sa bopp.

Euh, euh, candidat yi nga xamné ne euh, ñoo fa nekk dama propose won ñu def ay critères critères bu njëkk mooy critères d'abord de compétence politique ak ak technique ku ci nek lan nga gagner bëgg ñu def critères bo xamné aussi c'est un critère de réalisation pratique kan mo ci def lu melni zone industrielle de Sanjara n'est-ce pas avec 65 milliards comme moi, ci def lu agropole de Sandiara lu également 57 milliards donc nous avons des critères des critères aussi qui ont l'expérience, euh, expérience euh, ci l'international, diplomatie j'ai été dans 65 pays dans le monde euh, dem naa à ne ci àdduna bi ndax patron de Nestlé pour l'Afrique lu bëri dama ko Mais ma Mais aussi nous avons posé un critères qui est la moralité xam pour moi, un chef d'État ku war a jiite Sénégal da nga war a set ku jiite Sénégal également da nga war a am euh, euh, kii benn euh, li nga xam moom la ñuy xoole ci wàllu njub parce que waree yaa war a jiite nation bi waroo am dara ci sa passé en tant que fonctionnaire wala en tant que travailleur que ce soit international ou national waroo am dara lu ko lu ko gàkkal enfin j'ai demandé aussi ñu teg beneen critère boo xam ça me paraissait important mooy lan nga defal réew mi d'abord en tant que politique parce que soo demee voilà ci wàllu humanitaire comme je l'ai dit, euh, depuis 20 ans, 30 ans, damay des bourses partout Le toll 50 50% bourse bourses. C'est ma carrière c'est ce que doon def parce que j'ai cette notion de partage n'est-ce pas loolu moo ma ma euh, le lycée de Sandiara comme je l'ai dit tout à l'heure pour 850 millions tabax ay classes yu bëri dem Ndiaganiao di nga gis ay écoles man mako donc loolu mo waral quand j'ai mis ces cinq critères gis ne euh gisuma ci candidat yi nga xamne ñom lañuy wax ko ko am lool mo waral je pars duma ma xaar du may nommé wala di ma nommé wala di ma mais yow bo tegee ce critère kay critère yooyu yow yow lay gën favorable. non xam nga critère yoy pour man c'est les critères d'un homme d'État. Mm. pour man fekké né critère dans les autres pays comme États-Unis wala euh, France wala yenen pays do gis ben chef d'État bi amul un passé humanitaire Obama il a commencé d'abord dans les quartiers pauvres de Chicago de l'île de soo et tous les gars comme euh, le président Carter tout ils ont eu ce je pense que de nous réformer même euh, li le passé des candidats ki nga dans sa localité def fa dara avant muy nekk ministre def bi ministre def fa combien d'entre ces ministres vous nga collègues depuis très longtemps d'ailleurs c'est pas seulement le régime du de Macky Sall c'est le régime aussi de Wade beaucoup de ministres euh, da ngay def sa carrière boo xam c'est ta carrière personnelle doo un bon impact sur la vie des autres or pour moi, l'homme politique il faut être d'abord un humanitaire l'homme politique il faut avoir une une notion d'empathie Alors, euh, pour moi, dañ ko commencer boole ci ñan diriger le Sénégal xam-xam bi on est d'accord que ce n'est même pas euh, négociable Quand on sait amul xam-xam ci walu euh, euh, monde bi ci walu science ci walu économie amul xiyen xam-xam ci walu comment fonctionne le monde amul xam-xam ci walu administration il est évident que nous, ño waron sax décider de ne pas aller briguer la candidature parce que c'est s'agit de diriger un pays Ce n'est ay c'est pas une famille c'est vraiment un pays ça veut dire que da nga le monde nga xam que les codes du monde Les nga war a fexe ba li xew euh, Japon nga xam yan impact lay am ak li di war a xew Afrique suba mais au-delà de ça dama am benn avantage bi ñoom moi je je suis pour euh, l'unité africaine ak l'intégration économique africaine j'ai été dans 30 pays en Afrique maa nekkoon patron Nestlé en Afrique comme je vous l'ai dit maa euh, j'étais à Johannesburg pendant plusieurs années au au Ghana au Côte d'Ivoire donc sama politique yëpp yi ma a def mooy fexe Sénégal est a Afrique du Sud Sénégal gën a avec ak Nigeria. parce que jusqu'à présent nous on est trop orienté au nord avec l'UNICEF. ñu seet soo échange économique li ci ëpp France Allemagne États-Unis ainsi de suite alors que lu bëree bëri mën nañ ko def entre ñun africains Nous sommes envoyé au Mali deuxièmement je suis pour aussi que les pays africains yi à nos côtés Nous avons une diplomatie tellement puissante que au lieu de di commencer di voilà des relations euh, très très antagonistes nous wara Nous Mali muy Niger muy Burkina Faso ainsi de suite donc pour man Sénégal dafa wara nek malgré coup d'état nous ñu ñu def ak nan nga ni. voilà pour man euh, dañ leen wara à résoudre le problème intérieur pas que ñu supporter les coups d'état mais dañ wara def attention pour que ces pays là ne se radicaliser pas pour vraiment ñu fexe ba ñoom ñu mën leen jàppale ñu de cette période de coup de coup d'état à des périodes démocratiques waruñu toog rek di croiser nos nos bras parce que les lu am lu xew Mali tôt ou tard Sénégal lay ñëw lépp lu xew euh, Burkina wala Guinée tôt ou tard Sénégal lay ñëw donc diplomatie bob en la la laa mën parce pour man euh, Afrique bi may rêvé moy Afrique bo xamné ne benn Afrique lay doon Afrique bo xamné euh, pays yépp dañuy commencer intégrer une économie intégrer une politique euh, régionale intégrer également c'est une politique continentale dans le cadre par exemple de la zone euh, de la zone de libre échange dans le cadre de l'Union africaine donc je suis un panafricaniste aussi waral euh, tout nga aussi peut-être beaucoup de ci wax ci chaque fois que may dégg homme politique il me dit qu'il ils ne comprennent pas en réalité qu'on a deux gros problèmes le premier problème c'est le capital humain comment arriver à former lu à des millions de sénégalais am nañu métier suñu système éducatif en fait dafa baaxul baaxul en ce sens que ay chômeurs lay gën di former pourquoi parce que amuñu ay formation scientifique dama bëggoon fexe ba 80% euh, de des jeunes yoo xam ne dañuy en en sixième euh, wala en en troisième commencer maintenant aller vers les métiers scientifiques pour cela nag dafa laaj ñu réformer mathématiques yi dafa laaj ñu def ay bourses de discrimination mathématiques sciences et physique lors nous permettre au lieu de former des milliers, des milliers d'étudiants, c'est 75 000 bacheliers pratiquement, 50 000, 60 000 d'ailleurs ont petit formation, comme si nous gagnons du ligue. Alors que merci n'y a alors que euh, demande en ingénieur alors qu'on a besoin de techniciens dans tous les métiers. Ben qui est important, femmes importance, moi ni les mathématiques, de voir aussi une bourse de discrimination également positive. Moi, moi, ici, digéni, moi, ici, gorni. Lorsqu'on suñ ko l'école dès le nous avons primaire les sciences yooyu dès l'école secondaire nous jàng ces sciences là dans 5-10 ans le nombre de de sont en position de le euh, euh, domaine technique yooyu day yokku ñaareel bi formation professionnelle aussi j'ai dans mon programme sur un xoolee dama bëgg a 557 lycées techniques dans les dans dans les communes maanaam commune bi nekk a lycée technique ce système il faut reconnaître que c'est un mauvais système qui voit l'enseignement général Soit demain dans des pays où j'ai vécu comme la Suisse j'ai fait 20 ans ou l'Allemagne, en réalité c'est un système qui, les petits ëpp apprentissage comme nos apprentis mécaniciens sauf que ce n'est pas dans la rue c'est dans des écoles comme ce qu'on est en train de faire dans l'IN lycée lycée de technique qui maintenant mais sauf que c'est une formation duale école entreprise Là, en réalité ce qu'il faut faire donc, on war combiner formation scientifique primaire secondaire ak université ba pare aussi boole ci formation professionnelle pour que xale yi au lieu au lieu que 50 au lieu tous ces ces jeunes là de dem à l'université 50 de quoi dafa war a métier soo ko defee rek ñi dem dans l' agriculture ñu dem dans l' industrie ñu dem dans l' électronique et cetera système boobu laa gis en Suisse moom laa gis un peu aussi euh, en en Allemagne au Canada en Autriche et résultat il y a moins de 5 pour cent de chômage njàng mi moom Sénégal moom dafa dafa dafa tardé njàng mi mi ngi tardé na ni ñu koy defee euh, mi ngi sonal xale yi te du leen jural lu bëri te yàgg nañoo wax ñu soppi ko soppi ko mais ba léegi euh, yéen na ngeen daan jàngi ak ñuy jàng tey benn la rek. Absolument. Hmm. Je pense que c'est même dangereux pour moi. Parce que comme je dis, ce fait qu'il y a pilier éducation et économie, euh, a ndax ça correspond aux besoins de l'économie en fait c'est comme ça qu'il faut raisonner j'étais un des professeurs euh, à Johannesburg bi on évaluer l'université de Pretoria tous les dix ans euh, en Afrique du Sud en fait nuits euh, évaluer le système bi université bi ça correspond aux besoins de la société et en fonction de ça on change les programmes Sénégal rek la gis du programme ni au niveau primaire ni au niveau secondaire ni à l'université c'est les mêmes programmes depuis 50 ans depuis 40 ans depuis donc il me dit que si j'étais président de la République moi en fait def les états généraux de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur de la formation professionnelle nga les industriels ou le monde agricole ou nous nga utiliser euh, les produits de l'école nous savons maintenant qu'est-ce qu'il faudrait faire et définir les programmes en fonction de li nga les besoins de l'économie les besoins de la société tant que ñu defuñu lolu système de deuxièmement il faut aussi passer à l'enseignement arabe n'est-ce pas C'est primaire bi ñi ngi jàngalé ci daara yi il faut ñu moderniser ko il faudrait que Sénégal Sénégalais aient le choix jàng aussi langue nationale dans le futur moi je suis un partisan de ces langues nationales-là pour que euh, xale yi au lieu ngay jàng français rek de lac français yu neex de làkk yu mel noonu da nga war jàng wolof mën a jàng séeréer nga ainsi de suite. D'où le la du la tere ngay dem maintenant jàngi anglais moi par exemple je parle sept langues différentes mais du terrain euh, je parle CRR, euh, je parle wolof je comprends le, le, un peu de pulaar ainsi de suite donc loolu mooy sama vision du du Sénégal de que en tout cas que je souhaite diriger. un des point yi ma bëggoon yokk rek sa vision la ci Sénégal euh, li nga tudd noonu sox ak leneen propose tam lu toll ci di réforme bu fekkee ne yaa ngi euh, doon njiitum réew euh, réforme yooyu comme yow conseiller nga ci Macky Sall est-ce que sa xalaat googu yaa ngi ko ko doon eggee est-ce que aussi mu ngi la ci doon déggal justement loolu mooy problème xam nga li tax sax ma gën a génn je que lu bari soo ko bëggee def yaa ko bëggal defal sa bopp comme on dirait que mbéjum kanam yaa koy fajal sa bopp li ma euh, euh, naqari ci Sénégal ak li mu ci bëgg a def en réalité mënu ko conseiller kenn il koy a koy def par exemple dans le domaine de la formation professionnelle ça fait euh, presque dix ans la organisation ay voyage en Suisse pour aller gis lan des ñuy war a def ci formation professionnelle gis a un programme il y sax ay experts pour ñu réformer le système on a même créé un projet P2E projet école formelle mais vous nga tant que nous comprenons le paradigme en fait nous ñu ko résoudre pour nga nous résoudre un problème il faut comprendre au fond Lorsque euh, justement euh, me décidé ci réforme a ma def il y a beaucoup de réformes hein. il y a déjà la réforme sur la révolution agricole li ma bëgg a def que le ba Sénégal euh, de 3,5 millions de tonnes de céréales et de produits humains à 10 millions de tonnes loolu euh, mooy li nga war def pour que réew mi tout jéggaani dara on a vu ci période Covid bi fekkoon ne 100 000 tonnes de riz yooyu importé wuñ ko woon musiba mooy am ci Sénégal donc le le le véritable problème mooy comment le Sénégal mën a def ba sur le plan industriel mu def sa révolution industrielle je vais revenir sur ça et sur le plan agricole muy meew muy pêche muy yu mel noonu kon naka lay def donc toog. tënkal ñu mbay mi ndax mbay am solo te nguurug Sénégal ba de dee nguurug Sénégal ba léegi euh, da koy sàggane coow lay bëri rek tënkal ñu ci minute yow boo fal woon président nan ngay def ba mbay mi ëpp njëriñ euh, ci askan wi. waaw mbay dafa am ñaari ñaari domaine benn bi mooy ce qu'on appelle euh, la les petits agriculteurs ñi nga xam ne seen doole justement bi demul noonu encore ay moyens yu rudimentaires muy ileer muy euh, gajando muy li nga xam ne mooy ay machines loolu mënta continuer il va falloir que ñu ñu euh, def massivement investir euh, ci facteurs yi nga xamné moy ay semences yu yu modernes ay hybrides nga xamné au lieu ñu def une tonne cinq tonnes li ñu def ci ay maïs euh, investir ci li nga xamné moy ay tracteurs pour ces gens là investir li nga xamné moy formation c'est très important investir li nga xamné moy ay engrais lool motax j'ai parlé des phosphates d'ailleurs phosphates yi nga xamné ne dañu ji rek di boub di yobu Inde ak urée bi ñu wara produire dik ko nar ko yobu lool motax mo moo ci wax maintenant benen bi type mbéy mi c'est l'agrobusiness business nga euh, Sénégal peut a développer un te faire un un c'est à haut rendement Je suis ingénieur agronome je suis ingénieur agronome et industriel donc il faut ñu combiner li la transformation agricole et l'agrobusiness business Si ci zone yu mel ni de euh, ngay gis des de milliers de tonnes de manque, yo xam des day daanu pourrir ba pare ñuy importe jus d'orange alors que si on a ces produits là mën nañ ci personnel en tant qu'ingénieur industriel faut produits différents ay jus ay mangue séché ay mangue en poudre ay jus de ceci jus de cela ay nectar donc c'est la politique que je vais mener mooy faire ba agriculture nga intégrer avec ce qu'on appelle la transformation l'agroalimentaire pour que valeur bi Yoko, a yokku dans le sud je suis allé là-bas il y a deux mois alors c'est des milliers de camions qui jóge foofu port alors que c'est une occasion unique d'industrialiser justement le sud du pays